soo daan lu gaaral suñu yónnee sanga soo daan bay ma amur laay mooma wax kay way kon nga la di xeewal am na doom ku soppa Baye Abdoulaye defal ni ñu màggal ko Baye Abdoulaye Thiaw kuy jullit na ko ñaanal soxla ngaan ñu gërëm ko moo di waami nu dottil yol wa dem mooy mbër mu rëy mi soodaan mbërëm mu rëy mi soodaan mbër mu rëy sa nil masu ko dal sampa baa ngi ku feel xam am na doole ca fey baay Abdoulaye Thiaw xalifa général bi moom la jël di baay Abdoulaye Thiaw soo xamul Abdoulaye Thiaw soo xamul ee eh, jàng soor Maryam kon nga gis turu baay ba am na cër ca yonen baay Abdoulaye Thiaw xalifa général bi moom la jël jawaadun aa ah, soxna ngaan ba mu koy yor soon Abdoulaye Thiaw soxna ngaan ba mu koy yor soxna xamoon ni li jaatin bi nanu magal Abdoulaye Thiaw li jaatin bi xalifatul muslimina li doy nay garaat sama soppey sama ndaanan li doy nay garaadi laaji Abdoulaye Thiaw li doy nay garaadi bay laay dokoo gërëm li doy nay garaadi kii mam Seydi dokoo gërëm li doy nay garaadi yow daal bay Cherif mam yonen li doy nay garaadi ku ma soppal Abdoulaye Thiaw li jaadu bi daal bay Cherif mam yonennul i doy nay garaat ko koy baayu kay defat maal i doy nay garaat yow daal bay Cherif mam yonennul i doy nay garaat bay Abdoulaye Diaw sa trondo boobu moo jokko bokka gi moo feñ mer ma diina meroon ki mooy doomi Seydi Issa yaaram bi amuñu sab ku sopp Baye Abdoulaye ciow defal ne ñu maggal ko ki Baye Abdou Taye xalisul nga don mbiram ndanan le Seydi Abdoulaye ngay si bolum ndanan di set si Baye lay anu soppay Serif Musa gay lay def len ni ñu maggal ko Serif Moussa daira axlu laay a ngi ni yalla mo la bol ak ñom ngay setu Baye lay bu wer di set si Baye lay sëñ bi dama gisul sam ken si Manu ak bari ngor du jëw du gotti ñoñom ju tànce mooy fiilu sëñ musa Gueye laay ku gis sa jëmit foog nga yeem ngir sa melo gaa waree te du ma yéem ndaxte yaay xaritu Baye Abdoulaye sëñ Moussa mandook woyof ak i fit kilee woyof taaru bari muñ saytu ikam ba mu doy di sët si Baye laay waaye sa trondoo boobu loola waral réew mi ñëpp a ko jox njukkal muy murit bi di tiijaan xaadi ña seen jox na njukkal Abdoulaye Thiaw li doy noy garaat sama soppey sama daanan li doy nay garaat Alaaji Abdoulaye Thiaw li doy nay garaat bay Abdoulaye Thiaw yàgga daan ki fi daa daan fa soo daan sët si baay सद सिवाय